salaamaaleykum soppi ak xarit yi salaamaaleykum fu doomi Sénégal mën a féete ci àdduna bi te duñu seetaan ñu ngi rafetlu sa teewaay ci kanamu télévision Futur Média sant yàlla julli ci sangu-sang bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba munu mayee nu fekkee ba tal ko mën a toog fii jàkkaarloog yéen muy mbégte bu mag ci ñun di leen wax ne rek bisimile leen ci seen émission waree fu dooree émission bi nanu ko baaxooy defee muy tradition ci ñun ñu ngi nuyu bu baax a baax ak sargal sunu président directeur général ak mboolem ku liggéey si ci biir kër gi ñu ngi lay nuyu di la ziar boole ñaanal yàlla kër gi yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na fi soppante yàgg macha allah boobu nuyoo itam ak ziar ñu dem seete ko ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ceek nag di leen ñaanal lool di leen sopp lool ñu ngee ñaan yàlla sunu borom mi dara tewul yàlla seen taxawaay yàgg ci kanamu njaboot gi yàlla na yàlla sutural leen yàlla yàlla yokk leen taw féex incha allahu taala daa dee dugg nag ci bërëb yi nga xam ne caabi daf leen féete gannaaw bu nu nee caabi daf leen féete gannaaw maanaam ña nga nekk ca prison kon bokk mën nañ faa nekk nanu jàpp ne prison la waaye du prison ndax bu nu fa toogee ak xel bu dal réfléchir ci seen àdduna bu nu fa jógee seen réinsertion bu yombee rek lu bare danañ ko fàtte te loolu mooy àdduna amaan na sax bu ñu fa nekkul woon daañu nekk ci leneen loo xam ne kenn xamu ko ñu nuyuwaale bu baax a baax suñu maire suñu xarit la dinañ ko nuyu Bamba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla na gaaw jóge foofu nu mu gënee gaaw yàlla na ko yàlla dogal ñu daal dee dugg nag ci biir hôpitaux yi ak dispensaires yi fépp foo xam ne nit a ngi fa te yaram wu sutante bàyyi la fa ñu ngee ñaan yàlla yàlla gaaw féexal la ba nga dellu sa biir njaboot ñi leen accompagner itam dañ leen di wax mention spéciale ndax nit dafa soxla ku ko jàppale li ñu naan nit nitay garabam dëgg la waaye am na itam ñu ñuy wax ne nit nitee may garabam waaye nañu joindre ñaar yëpp nañu boole ñaar yëpp joindre l'utile à l'agréable nuyu képp koo xam ne daal ci gàttal mi ngi toog di nu seetaan di ziar ku tiis dal ci kawam di ko massalu bu baax a baax a baax mbokk yi wax naa ko sànq àdduna moo ni mel ku nekk ci àdduna da nga kontaan da nga mer danga jaaxle da ree waaye bu ca ñëw rek séddal ne beneen dana ta topp kon boog ñu ngi ñaan yàlla ci coobareem yàlla na nu defal jàmm ñu daal dee sukk nànk nank nànk daal dee ziar sunu maam maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ak njaboot gi yëpp macha allah noo ngi leen di ziar boole koog di leen sopp daal di dugg Touba ah macha allah dem seeti suñu maam suñu xarit. sëriñ Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke moom itam yàlla na fi yàgg te wér maa ngi dugg cene ba sekkeen bàyyi sekk noo ngi koy nuyu nuyu njaboot gi sëñ sëñ du sekk itam ñu ngi koy nuyu ëtti maam ab Ablaye caw Laye nu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax daal di nuyu nag waa daal di nuyu wax dëgg yàlla euh, waa waa waa Njaareem fàttewuñu kenn waa waa waa Ndiassane itam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla defal nu jàmm waa kër Thierno Seydou Nourou Tall macha allah nu ngi leen di ziar bu wér a wér a wér di leen tàllal loxo di bëgg rek lu ngeen ñu yokk ci ñaan doyul ndax léeg saay mami Linguère ak Eva Trac ndoy baan dañu koy soxla bu baax moo tax ma xëy suba teel dama wax ne dama am philosophie yu tous les jours Linguère mm. dama xëy daa dee wax ndekete yoo mm. juge ba nekk ca tribunal ba mm-hmm. doon magistrat bu jigéen ah bu bu fàttewul woon coono këram du tala xëy si tribunal bi ah yàlla na sutura yàgg <laughs> da nga ko yóbbaale. ndax xam nga jigéen moo amul benn dallu. dëgg ndax bi ngay fanaan ci kër gi jigéen nga. da ngaa war naan wii monsieur. ak di toppatoo xale yi. boo xëyee suba. Ah. même boo demee ci liggéeyukaay ba ak ndombal tànk loo mën di am. yaa ngay xalaat la nga bàyyi ci kër ga. Ah, yaa ngay xalaat gone yi yaa nga naan jànq ba foo toll. foo loo def. Ah. mbaa xale yi defuñu lii mbaa yi defuñu laa bu dee xale yu jàng yaa ngay xalaat lu ñu def ci école ba. kon daal jigéen amul benn heure daal. waxal sa maam ni ko ñu ngi koy ñaanal mu sut aw fan Nelson Mandela. yàgg fi lool te wér. bu ma doon somo noir yaa may sol waaw mais xam nga boo boo. waaye itam bu ma doon góor danaa baaxoo di wax jongama yi lu neex ndax dafay neexal xol. ah en tout cas xam naa ci leen di boo koy weddee laaj ko ndoy baan yeewu rek jàkkaarloog jongom ah, day neexal ba na de ci ku xam lu baax moom gisoo fi mu ne li ñuy ñaaw yëpp bu yeewoo jàkkaarloog mari journéem da maa la ko wax bisimila Jóob door lañu daan dooreti deeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg mhm. sama maam yàlla mag Nelson Mandela tëpp amiin yaa di ziyaar ak kilifa aada yi di ñaanal nag sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum mu yàgg fi lool lool lool mhm. maam yàgg fi loo fi yàgg dama naan góor gi ci ruq bi te jàmmi réew mi rek a ko fa bàyyi mhm. kon loo fi yàgg doyul mm-hmm. waaye noonu lay ziyaare mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar ak mbooleem lu Mbàkke yu gépp maa ngi leen di ziyaar tey ñaan yàlla ñu yàgg fi loolu tamit sukk ci suuf joxe sama ñaari loxo di leen jox seen wàccu waay tey mm-hmm. sàkku ñaan ndax yéenay kenug mbaar mi noonu lay ziyaare kilifa diine kilifa aada yëpp mm-hmm. di ziyaar sama maam Kamara Jibiante boy di ko wax jot na loxo yi dellu seeti na maa ngi lay ziyaar lu bari di ñaanal yaay diggéen mu xeppee àjjanay firdawsi ñuy yaay na fi ak maman Kinushka waaye sama yaay asu jara itam temps yi moom bàyyi naa ñebbe ji bàyyi naa lépp temps ay ñay yu ñu miss yu laa lay indil. xam naa ne mooy baax ci njaayeen yi. baax ba nu ko soppulee ajaratu nday soxla mbuub mi ngi sunu kon ñu ngi koy soppuloo waaw jekk ci dëgg la euh, di ziyaar itam sama yaay Asu Seck mère ah. Ndoy ah. ak Mari Baan sama soxna su baax soosu su ngi koy ziyaar lu bare baree bari. Eva di la nuy nuyuwaat di la wax ne tey moom. waaw euh, namuma première dame. dama dem Abidjan waaw moo ne naan di te nga. waaw tey namuma première dame dama dugg Abidjan. Dominique Watara tey namuma Dominique tey moo tax ñu ne bu ñu xeebee suñu sunu nekkinu africaine suñu affaire la mhm. ndax Afrique dafa riche en culture mhm. ah, riche en couleur riche en lu lu rafet rek xam nga paaña paaña ngi nii ñun ñoo ko moom mën naa ne waaw ndax bu ñu ko solee lañuy gën a jàpp gis nga africaine bu sol paañ waaw non loolu dafa am ji lay jox daf lay jox sa jeege dama xam ne bu la boo sañoon moom rek ngay sol daf lay jox sa jeege dëggantaan dëgg la te gis nga bi ci see solee benn dagget waaw ñoom gaa yi sol ci benn dagget ci lañ commencé collection Bamana Couture mi ngi nii. Ah. lii la Mimi Traoré génne. ah beaucoup de pagnes. mais génne na lu am farata. di nga ko gis. non ah, on a beaucoup travaillé avec les pagnes. Mhm. macha allah dinañ la ci indil nga koy gis. bu soobee yàlla sunu xaritu xol. Hmm. ah booy piir Sañu Xool. xool hmm. euh, responsable Pire Sañu Xool. <laughs> Ah, eh, Pape Pire Sañoxo. réseau Saalum pare bu ma dem mën na ma laa continuer. xam nga Sénégal da neex rek nga liimal ku la neex. Ah, lu la neex yow ndax xam nga loolu li ngeen. <laughs> waaw sa sañse bi rafet jigul ndaanaan lii. Pire moom ndax la gonay Pire di yëngu. yaa nga cee jàpp la nga mën ah, gis nañu image yi gis nañu nit am na fi lu ne gaañ yóbbu lu ambulance dëkkam ba mu dëkk yow dégg nga Fall de gisuma ko moo ko Umu Xayri Jaañ ña nga ña nga sëgg di reetaan. waaw waaw ñoo ñu ngi leen ziar. ñu ngi leen di nuyu ak kor Massène ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci mhm. jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdou Khadre. ñu ko ñaanal mu yàgg fa lool te wér. dara du ko dindi. waaw di ziar waa Pire Sañokor comme di ngeen ko waxee rek sëñ Moustapha Cissé. Mhm. moom parent Djibi Diagne monsieur le maire Serigne Mboup. Mhm. ak sunu imam ba sëñ Moustapha Ka. wallaay ñu leen di ñaanal baax Baye Bardo Dieng. ak Serigne Mbaye. ak soxnaam fii ci cité Kër Damel ñu ngi leen di ziar baax di ziar tous les sénégalais de la diaspora mm-hmm. ak ñi nga xam ni ci kër yi seetaan mm-hmm. jeeg geeg maire yeeg paa yeeg soppe yeeg xarit soppe yeeg ñi ci boutique yeeg ñi nekk ci bureau yi nee naa leen ñu seetaan télé bi ba DG ñëw ñu daw mm-hmm. seetaan leen ba seen xol seen toog leen daal ci bureau bi ngeen ne uh-huh. bokk ngeen groupe wareef mm. waaye bu DG ñëwee ngeen waa fente daal di <laughs> ñi ko daan <laughs> léegi bu DG wootee joxe demande d'explication ñu woo la nga dem ñu woo am na ñoo xam mën a pour nii diplomatie a ah, yow diw karité <laughs> <laughs> dafa am ñu ko daan déglu ci rajo bi. waaw te déglootuñu ko effectivement te ñu ngi kii mais loolu c'est que branchement provisoire la woon. boo oh, xam ni d'accord euh, loolu rajo la bu war ubbi. d'accord te instant bi dañoo nekk ci. liggéey bi ci liggéey bi. Mm-hmm. pour ubbi rajo boobu. moo tax amatuñu tele bi. ci rajo boobu voilà dañu leen ko faa dugaloon noonu rek waaye xam naa ni dañ wax njiiti suñ mënee am beneen fréquence mhm. bu ko fa dugal parce que gars yi duñ mën a toog ci kër yi toujours wala ñu télécharger application boobu nga xam ne moom pour ci mhm. seen portable c'est GFM Info mhm. da fay am télé bi am fa rajo bi am fa produit groupe Futurs Médias yëpp loolu tamit c'est important d'accord macha allah mbokk yi ñu leen di wax rek sunu mbokki njaayeen yi amaan na instant yi ñu ngi uuf brioche yi ñu ngi uuf fromage ngi uuf leneen ak leneen toog leen bu baax a baax a baax jàkkaarloog ñun ñu dellu si waat nag ci waxtaan wi nga xam ne sumb nañ ko fi semaine bi muy li nga xam ne wàlli infanticide la bu nu waxee infanticide mooy nga jur doom ba noppi def ca lu jaaduwul nga jur doom doom ñu ne la yaral jëloo yar nga def ca lu la neex daa dee arrêté bakkenam nga jël sàndi yooyu xeeti yëf yëpp ñu koy méttital doom ji soog a juddu ah bu doon sunu sago la du ci am waaye nag mu mel ni àdduna itam pour mu nekk àdduna faaw lu di ci am lu baax da ciy am lu ñaaw ciy am wax lu di da ciy am ñii njool ñii gàtt ñii xees ñii ñuul eh, mhm. loolu mooy def àdduna waaye nag itam dafay baax ñu daal di farankulaayu nànk toog waxtaanee mbir ndax ñu jële ca njëriñ ndax waxtaan boo gis boo ca jëlewul njëriñ boobu waxtaan jaratul waxtaan matatu ko woykat ba wax la ko mhm. li ngeen fàttali ma lu woykat bi waxoon waaw def ne woon woy bu diglewul yeetewul ay naxaate la dëgg waaye xam nga bu ñu nee waxtaan dañuy waxtaaj dëgg bu ko defee ku ca nekk jël sa ndab dugg ci sa ruq mën a kan tànn la cay jariñ nga jëfandikoo ko jamono jamono jii ñu toll nii hmm. am na ko tollu diggante koo xamante ne boppam jaxasoo woon na dëgg la mi ngi ci diggante ndax damay jur sànni ndax damay jur maye hmm. wala teema ne fàng dëgg waaye xam dama la waxoon ne la ku dem ba mariage ak yàlla nëbb sab loxo dafa wees hmm. ndax ko moom bi ngay jóg di ko mébét di defi mi ngi lay gis waaw ba nga demee ba di ko def mu ngi lay gis ba ca doom jay sosu yëg na ndax bu dul woon moom du antu ba ca doom jay nekk bis yam cay nekk ca moom moo koy waññi moo koy dogal bu bis ba jotee bu juddoo boo ko léegi man damay daal di tijji rubrique dina ko waral damay mhm. dina ko waral waaye liñ naan ji fii jaafaa mhm. dina ko waral benn ndooy baan mariage forcé dina koy waral waaw dina koy waral waaw mhm. li ngeen ñaar ñàkk bokk yu la taxaw dina ko waral ndoy baan ñett dina ko waral ñett mooy jëkk tukki bàyyi fi sa soxna waaw ñu mu ëmb sa ginnaaw it dina ko waral ñeent gone gu amatum xel te bëgg a siiw ne weenu jë dina ko waral juróom jigéen goo xale boo xam ne tamit toogul di dajalay far rek di mbaraan di mm. waral ngay ëmb te doo xam ku la ëmbal ma yokk ci dina ko waral askan bi laa nekk waruma def nangam sama ndey notable la ci dëkk mm-hmm. bi sama baay baayay diw daa dee jur rek dem sàndi ne lii sunu kër amu fa mm-hmm. waaye dangaa juum ndax tooñ nga yàlla ba noppi ni ko mbëlee kon bokk à vos antennes da ngeen di ubbi ubbil nañ leen ah à vos appels ah borom kër gu jubati borom kër gu jubadi man kay xam naa ne xeetu dana ko waral yi mënoon na maa xuus rek di dem di tegale di juri doomi te amoo moyen yoo leen yoree bu yàggee nga sànni balangal leen jël leen ne leen mbedd maa ngi noonu ñoom dinañ ëmb sànni ndax ki yul muy te bu wàccoo dee. ki amul fu mu fanaan xam nga ne mënu faa tëral. bisimilah ubbi nañu antenne yi ubbi nañu téléphone yi à de juger kon bokk woote leen ngeen wax seen xalaat tombek nag ñun jot nañ fi wax dëgg yàlla ay témoignages yu doy waar doy baan mhm. mhm. euh, euh, doy na waar daal. doy na waar lépp kenn mënees koo wax. Mhm. Ah? xanaa xamoo infanti infanticide bii nii. Hmm. nit ñi dañu yaakaar ne jur doom dugal ko ca foos wala dugal ko ca mbalit ma mu dee. Hmm. man pour xale bi ñu tegoon démb noonu xam naa ni su fi xaw ndax vieux Diouf a ngi fi déet su reportage pare maaw mm-hmm. mu ñu ñu jox leen ko mm-hmm. mm-hmm. da ngay jur doom sànni ko sànni ko baa mu nekk ci mbedd mi dëkk ci mbedd mi nekk enfant de la rue moo nga jur doom sànni ko ca mbedd sànni ko ca mbalit ma ñoo yem dëgg xale boo xam ne ba mu juddoo ba am mhm. trois ans nga ko gëj a gis xamoo ci lu mu nekk mhm. xamoo fu mu nekk xamoo dund mi ngi dund wala dee na jaaduwul te di nga dégage ses responsabilités mhm. moo jur sànni ko ñoom ñoo yem moo jur de rey ko moom moo yem toujours may wax ni na nit ñi di jël seen ay responsabilités wax nga dëgg am doom ak nit ëmbal nit ñu nga ëmbal la nga dem jiiñ ko nit nit koo kooku bañ te nga xam ne moom la tegal sa loxo. te nga xam ni moom la. àdduna yi fi xew daa bare de ku yóbboo euh, ut fit allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, jërëjëf Serigne Touba xaayam na suñu yaakaar tey ëllëg sama maam yaa ngi man nekkal man dala. xam nga wuyu. sama soppi bi ñëw na. sëriñ <laughs> bi na nga def waaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi <laughs> ñu ngi lay delloo ziar ngi lay fay lu bari. di jiite suñu <laughs> ah, papa Cheikh. papa Cheikh papa Cheikh. ah nu ma ko nu ma ko ci defee papa Cheikh. papa Cheikh. xam nga xam nga papa Cheikh dafa sorewul pap moo tax mu neex a wax ci man. wax nga dëgg wax euh, benn kii bu ndaw rek la maa ngi jégalu bu baax. loolu eh, ci la bokk di rafetlu di rafetlu émission bi. mais mais ñun sopp nañ la ce que xam nga que. ah ñun sopp nañ la vraiment aywa bisimilah. bon di rafetlu émission bi vraiment. Euh, di nuyu Ndoye Bane parce que moom bi nga naan amul soppe si kii bi mais nga xam ni man maay soppe. dëgg la bon vraiment aussi tamit euh, li nga lépp affaire FADC mhm. bi. ndax li koy waral lépp mooy euh, nga xamante ni day. xale mhm. jigéen ñi léegi. Mhm. am nañ fit am fit boo xamante ni. Euh, ku si nekk yaa ngi am téeméeri far ak juróom-benn. ba su ndogal amee doo xam ma pour ambal. da nga obligé soo juree du wala nga ëmb ba nëbb ko. heure am doom jot nga dem sànni ko. c'est vrai. ñu ne soit nga ëmb xam nga ku la ëmbal nga la tout seqal benn xale bu góor boo xamante ne nii ba mu fexee euh, kii sa kaw nga jënd ko alors que c'est vrai. Mmh. ñoo leen di lu vraiment tamit di leen ñaanal yàlla. amiin jéem a émission bi lu fi waay yi ñaan yàlla noonu ko bokk ak yow. amiin amiin li ngeen lii mooy Sénégal. billaay mooy Sénégal ñoom ñu ñaanaale ba tey bi yàlla def fa jàmm. amiin nga xam ne dikk nañ ci biir réew mi. nañ xam ne ñu ngi seen dëkk. wallaay ah yëf yi lépp ñëpp la. comme li doy wax démbit mm. euh, Sénégal réewu teranga la. dëgg la réewu fat gan la. Ah, mais ñu ñu fekk seet bu ñu jàpp ne rek xëy na réew mi dafa metti mm. nañu leen dalal ndax ki xam nga ki yanuy loxoom daw wutal si la. Mm. kooku dalaa yaakaar te yàlla bu yàlla tas yaakaar. dëgg la mais xam nga Eva ñi ngi wax lépp lépp lépp. mais itam waajur yi nañu delloo siwaat seen xel hmm. dama dégg Demba Ndoye di ko wax mu ne génn bi du solution dëggantaan génne bi du solution hmm. ndax ki nga ci biir kër gi te mënoo koo lijjanti boo ko sànnee mbedd mi mbedd mi def ci la ko neex doom ak jikko ju mu mën di yor ak nu mu mën di yor yoral ci biir kër gi hmm. ndax yow sàmm nga ci njaboot gi la yàlla jox te sàmmkat ñaar yi rek lañ ko sant bu mu réer bu mu ruur te boo sànnee ci mbedd mi mu réer ndax dina dem foo xamatul mhm. dina ruur ndax dina dugg ci lu mu war dugg te su ëllëgee mhm. mooy li la doon wax démb bi ñuy tëj gis nga gone buy yéeg mag du ko yëg waaye bu ne dër daanu mag jënd juróomi dërëmi karité fanaanee bés ba bët set bu baax na waajur yi xamaat ne yow doom ji yaa ko jur ak mu mën di mel ak lu mu mën di indil mhm. sangaatal sa doom ba mu set nga dencaat ci biir kër gi sàmmaat tegaat ci yoon dañoo bàyyi nag léegi jaar jaaru mag ña moo tax ndax mag ñi dañu daan denc seeni doom yu jigéen nañuy dencaat suñu doom yu jigéen ñi boo nee denc nag tollatuñ ci jamonoy denc ndax dañoo nekk ci jamonoy internet nekk ci jamonoy portable nekk ci jamonoy lépp lu tasaaroo waaye dencub cosaan laay wax mag ñi bu ñu musaana am doom ju jigéen dañu koy denc am na nu ñu koy dencee ci suñuy aada ak sunuy cosaan mm-hmm. def ko ci biir kër gi gone gi fekk déggul alxayri góor mënut ci moom dara mm-hmm. bu la neexee bàyyil ci mbedd mi muy taxawaalu ba bët set mm-hmm. daanaka moo béy wu tukkala yam kenn du mën guleem gu tukkala yam waaye nag xam nga ñun nag euh, li ñi ci mel ni Evatra bu demee ci sëriñ li ñuy njëkk toppatoo mooy sama waa ji naa ko téye bu baax sama wujj ah. bi na génn kër gi ah. sama nangam da ngay fàtte sax dem ci sëriñ pour sa doom doy baan mais xam nga lan mooy problème dem pour nañ ko ñaan mu téye boppam nañu ko ñaan nu mu dul moyee rare nga gis ko. jeeg lu mu sangoon na ca sëlëm doomam su bëggee jàmm. wuy lii ndax lii sa alal. te nga bëgg bu ma naaxoo rek. yee boo sangoo sëlëmal sa doom. <laughs> lu lay raas sa mënu laa jàpp mu dem ci sax njaboot dégg naa dëgg de te beneen bi ci gën a garaaw mooy li nga xam ne mooy sa alalu àdduna te nga bëgg mu mujj la ginnaaw boo ko sàmmul ku la koy sàmm moo te moo di njaboot jëlal sa koffar foor def ci sa ngalam teg ko ci mbedd mi waaw xam nga boo jëlee ngalam def ko ci leget waa boo ko joxee béy mu yaakaar ne dugub bi suuna la waaye tey boo ko joxee tëgg ba bam pare ca mu nga def nii nga def su ma la may def fataa modile ngay jël rek wut ma fataa la <laughs> modile ngay jël nee naa nee naa nee leen keroog nee naa leen keroog ay doom dañ koy ñàkk. dëgg nañ dem wut ku leen bindal xunut. ah am boole ko lañ koy booleel. jël mu wane xaw a njàngam tuuti waaw. waaw xunut. Mm-hmm. borom xam yi xam nañ li may fi ngay waxee. biir boole kook la nga koy booleel jël a jënd ay silib yu bees. dëgg la mm-hmm. def ko ca moo ne ko fi ko ci ko ba mu tooy solal ko gone yi. Ah. ba mu wow ci seen yaram. Mm-hmm. xale bu jigéen boo ko defal. wala xale bu góor du moy. dëgg la amul jëkkër. wala amul jabar loolu. borom xam-xam yi xam nañ daal. xam nañ ñu koy ndax euh, kenn du encouragé sax euh, xarafalu jigéen. Mhm. ndax bu dee ci làkkakat yi bu nu la xarafalaan ba noppi. Mhm. foofu moom dafa am nu nu koy liggéeyee. Mhm. ba ba yenn yi du ñëw sa waaye jamono soppeeku la mais bi jamono soppeekoo ba boobu noonu ñu koy bañ itam. ndax li cay li cay topp après. nañ suñuy aada. dëgg la suñu maam yi comme li Ndoye Bane wax dañu daan ñàkk seen kër yi. bu baax daawoo gis jigéen juy mooy daawoo dégg góor guy def naka su dul noonu. jànq ji dañ daan nekk ci biir kër gi même xanaa xamoo ne li ñu daan wax jamonoy soccet sax mm. sër yooyu noonu sa mag daan tëddee dañ ko daan jël am nuñ la ci def yow jànq bi mm. jaragul mm-hmm. da ngay aaru ba keroog ngay am borom kër mais loolu la ñu bàyyi dañoo ñagatul mm-hmm. li ndoy baan doon wax ci xalaas bi naan ki ànd ak soxna jàmbur ñu kolewante yooyu yëpp soxna suñu ñaga ko waral am na ñoo xam ne buñ la bàyyi woon ak seen jabar ngeen fanaan ci biir kër di mm-hmm. fanaanee bërti bërti ba bët set feeg borom dikkul mënoo ca dara dañ dellu ci suñuy aada ak suñuy cosaan te xale yi soo leen takkalee ak fas ñooy dagg fas gi soo leen takkalee téye boo leen joxee na sang ñu demee ba ñu tuur ko duñ ko sax xanaa yéen tamit kenn kenn kenn kenn rawu leen ndax mami sànq ah, bisimilah ndoy baax non vas-y vas-y mami ndax mami sànq ci waxam nee na nu ñu téye xale yi uh-huh. ndeysaan maa ngi am envie wax ko ci saa si moom tata mami uh-huh. am na xale yoo xam ne saa bu nu xëyee suba teel ba bu ñuy wàcc ba bu ñuy tëdd guddi xam nga luy seen liggéey uh-huh. naka la ñuy travailler maman ba mu génne ñu kër gi parce que loolu dafa am cas boobu li mais denc boobu danul nekk lu ñu lay takkal du nekk lu ñu lay sang du nekk lu ñu lay def leneen. ci pot lañu koy def dóor ko ba mu mel na mu war a mel ñu wut fu ñu ko ne dëxañ denc. ci biir moom gone bu tewee. yaay xam na fa mu ko denc. bis boo demee ba tollu ca dem yaay dem bind ji ko na fexe ba bu mu réer rek. mais nag fekk nag fekk ko. mais nag doomu nandite yi nga gis yëpp si sama yaay dafa am lu mu defaloon sama rakk bu jigéen pour bañ mu mooy. waaw am fu mu ko denc. mu réer waaw maire ba gaañu. Hmm. xale bi am jëkkër. bëggul ca jëkkër ja dara. kenn mënul ci ndaw si dara. li ma lay wax ni semaine bii passé problème la tamit. c'est que yow rek social nga. ñuy yéeg ndaw si di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba ba ba ñu daje ku ko dindi mais tamit xam nga. ne ko yaa ko jàppale rek ci yëf bi wax ko mu leer. déedéet xam nga <laughs> dégg nga c'est que affaire yi. Euh, dafa am yoo xam ne soo ko defee cosaan ak aada yoo xam ne yu fi maam yi bàyyi yoo xam ne soo ko mhm. defee del sóor dee bëgg sa doom hmm? bañ a moy ba nga def loo xam ne tey jii mën nga hmm? ko def tey dee suba mais su fekkee da nga def dara ci sa njaboot na nga ci waxtaan ak nit na nga ci waxtaan ak sa borom kër daal ne ah ni ko kat sama borom kër kat man kat demoon naa ca Ndoye Baan mm-hmm. demoon naa ca Maawo mm-hmm. defaral na ma loo xam ne xale yi duñu moy mm-hmm. su fekkee lu ñu denc la nga ne ko maa nga denc fii su pour ñun ñaar ku ci njëkka a dee sunu sa morom nga xam ne la ma defal xale yi ma nga fee nii lañ koy dindee suñu amee jëkkër waaye bañ a bañ say doom may ba nga def loo xam ne yow dong ko yëg nga dee xale yi uh-huh. juddu gé màgg war a am jëkkër am problème uh-huh. loolu tamit ne ko nit ñi di sóor nit ñi nañ koy sóor parce que loo gis am na caabeem lu ñu tëj lu ne uh-huh. am na caabi bu koy ubbi donc loolu na ko nit ñi sóor mais parent yi toujours ñuy sensibiliser xale yi balaa avant mbir mi di ñëw. mais su affaire bi ñëwee. ba pare ba mu ëmb. nga di ko génnal sama kër. nga génn kër nga ma ngi ca mbedd ma. Oh. ku la war a xamal xamal xamal voilà oh. mën na génn ci mbedd mi ñu ëmbalaat ko encore. c'est muy jël doom yi di sànni di dugal ci force. Mm. problème mooy soo demee prison jigéen ñi soo fa génnee ña nga ña fa ña fa rey ay doom. kaso ba la des lu bari. dina interpeller tuuti responsabilité yaay yi. Uh-huh. bari parce que waxtaan la dong dañuy échanger ay xalaat. Uh-huh. Uh-huh. bari na itam ci wàlli infanticide léegi saay bu ñu jàppee doom dañoo jàppale ndey. waaw man yëf bi jaaxal ndax euh, infanticide lu ci ëpp booy xool ndey bi mooy nekk complice dina raar trop infanticide nga gis ñu jàppale ca bàyyi. waaw waaw raar mais yaay yi lu ci bare bare bari dañuy tëddi. Mm-hmm. ndax lu ci ëpp mooy ñoom ñooy fexe pour yàq ko. Mm-hmm. ñoo koy jàppale te am doom ba ah. ñoo ko cay ci ci ëmb bi sax. Mm-hmm. la ñuy tàmbali nekk ci yàq bi. dëgg bu ñu amul nag mooy ñu demee ci yenn yàqukaay yi ndax bu ñu fàtte ne tamit am na ñeneen ñu fi dugg ñoo xam ne yàq bi moom léegi. Mm-hmm. comme bonjour à part gratuitement c'est dara ci ñoom. Mm-hmm. dëgg la mais xaalis a koy def. yow nag bu fekkente ne amoo def ci cin li taloo dem di fay yu cher yooyu. dëgg la nga daal di tàmbali di dem di wuti say reen di ñëw di xooj di jox xale bi. te li nga wax démb daf ci am doom yoo xamante ne ak ñu ëngës le. kenn mënu leen boo leen bëggee rey yaa fi jóge. ëngës le mooy mag yi euh, magi dëgër bopp dëgër bopp dafa am ësle non wala ma liir bi ësle kon magi dëgër bopp <laughs> ësle ak ngësle leen tëj nag ñoom amul beneen bu ca topp non am na bu ci topp am suñu suñu non bàyyi boobu boobu bàyyi liir bi war a judd war a nekk commerçant Sandaga ah. liir bi war a judd war a nekk ab chauffeur liir bi war a judd war a nekk animateur da nga ko mën a rey waaw liir bi war a judd war a nekk président de la république <laughs> mënoo ko rey mënoo ko rey nigal nigal nigal ma ma jël ki ci li dëgg rek ngeen fi wax <laughs> dëgg rek allo allo salaamaaleykum allo dafa mel ni kooku dem na. bëggoon nanu mu nekk ki ki jëkk ñaareelu nit bi bi dugg. wala dafa am yaay yoo xamante ne. dañuy euh, li ñuy wax naan béjjënu nag ba muy langaaroo mag ñaa nga woon ca penc ma dañ caa jéemul dara. dëgg mooy yaay yi nga xam ne dañoo bëggee dañuy toog naan doom ji facture courant bi facture ndox bi. sama natt ba fee indil ma lii indil ma laa tam wóor la ne yow sa doom association ma lànk tekkee ma ñorul xaaju guddi laay génn la bokk. déedéet waaw waaw bu ñëwul lekk waaw waaw liggéey déedéet ay ah, nelaw ah, ko ci dolli de boobu ndooyee ko yare woon waaye da ko génnewul tey <laughs> sa doom bokk foofu nga di ko laaj ay millions par weer dëgg sa doom di la ko indil di ko indil ba xëy indil la doom dëgg la nga ne ko noonoo doom a gàccaal ci sama biiri nawle sama wujju fii sa bàjjam su ko déggee sa lii bu ko déggee commencé di xooj ay reen di ko jox mm. doom ja war a nekk garabu pénc law bi di ko gis ba cay teg sémmiñam ba koy gor mm. Mm-hmm. doom ja di gën di màgg ngay wuti pexe mm-hmm. doom ja di yàlla di ca defi pexeem ngay wut mm-hmm. say pexe yàlla di tegi pexeem pexe yàlla antu nga dem ba doom ji juddu nag war a juddu nga jàppale sa doom pour rey ko pour rey ko wala nga taxaw ne xale bi doom ji dañu koy rey par force mais kooku xale boobu su demee ba feeñ yow complice nga da ngay dem tëddi te loolu njaboot gu tas la lu ko fi jar ndax li nga doon bañ àdduna ree la àdduna dina la reetet far lu la ree yem ci mais da lay reetet double double double ree mooy double ree ah dem nga ca kaso ba hmm? sa doom dem na ca kaso ba te hmm? Sénégal moom boo fi sàccee neen dem ca kaso ba na la wóor ne sàcc nga ba keroog ngay dee boo fi demee ca kaso ba moom détenu nga ba keroog ngay dee balaa ci ak téyal doom ji hmm. doom ji su màggee mën na mais c'est que am na téye doom yoo xam ne nag pour nga téye ko ci réew mi jëlal ci ci asalaamaaleykum allo allo allo salaamaaleykum allo nga am jëkkër yoo xam ne dafa ñuul ñaaw ba niroog ndóoy baa ah est-ce que du charmam wala nga am jàmm tax soo amee jëkkër joo xam ni dafa boo fi juree doomi tubaab dafa boo coofee doore ba mel ni ndooy baan ñuul jantal bari feem nga am soxna soo xam ni tamit dafa rafet ne soo xoolee ay maamam ki maamam amul nit ku xees ndooy baan gis ko ni mel nga moom doom doom ju juddu di niroog Henri Casper Jacques <laughs> waaw doom jooju foo jëm ak moom. di nga ñu may jàmm de. yaa yëpp jommi. soo doom ju juddu nekk tubaab. jóge Cilmaxa kii jóge Pire. Ah. ngeen sëy. Ah. seen ñaari maamaati maamaati maamaati maam. amul ko xees maanaam juróom fukki maam. waaw doom ju juddu di niroog Henri Casper sax. doom jooju nag soo gëmul yàlla lool di nga ko sànni de uh-huh. di nga ni waa lii fu ma jëm ak moom uh-huh. maanaam doom ju juddu nañ ko leeral ndax yenn kër yi da nga gis ndey ñuul bàyyi ñuul doom di ko xees uh-huh. maamam la jël waaye doom ju juddu nekk métis ci gàttal nekk métis ak i karawam nekk bi mu fi jaaree boobaak yi ba mu daan entraîné gaynde yi yow da nga daan dem di ko may ndox loolu la nag ah. doom ju juddu nag di niroog Henri Kasperza loolu doom jooju ban imaam a koy juddu su imaam ba tiimee liir bi. Hmm. xool baayam xool yaayam. Hmm. daal ni kii moom fu ko gaa yi jële hmm. ndax est-ce que du nañ ko weccoo. wala nga dañ jiiñ ko waa maternité ba ne dañoo dañoo weccoo samay doom. dëgg la fekk kenn weccoo ko. fekk yow sa bopp yaa weccoo yaa weccoo jëkkër. ca jamono yooyu. c'est ça loolu tamit day indi day indi nga jur doom sànni ko doom jee lay jommal da lay jaaxal dëggantaan. te loolu mi ngi fi de. li tax bu nu amee problème ñun du ñu dem xool ku nu mën a waxanteel wala ñu dem ci psychiatre yi wala psychologue yi ñu xool la en sociologue yi wax ak yow dellu si la. dëkk bi fii nii nëbb. doy baan man yëf boobu jaaxal na ma. nit dañuy nëbbutu fii koo waxal mu siiwal la. Uh-huh. da ngay dem ci nit nettali ko say mbir mu daal dem nettali ko keneen keneen ka nettali ko keneen uh-huh. keneen ka la ma la waxoon ci ngóor ñebbe mm. loolu moo lay dal mm. affaire yi daal day dëkk bi nit ñi xam ko mm. c'est ça nit ñi dañ lay xamal sa problème te duñ la ko fajal li sunu maam maam euh, maam Cheikh Tidiane doon wax de waaw la nee na li metti ci Sénégal mooy doo faj aajo nit ki te di tee di tere keneen fajal ko ko c'est ça du ma la may te keneen du la may mais tamit beneen bi ci topp mooy sénégalais moo moo taamu problème problème solution mm-hmm. sénégale lu ñëw am na ci solution. Mhm. loo wax mun la ba suba. Mhm. suba yi moom duñ jeex. Mhm. léegi danaan la xaaral ma làmb pexe mi su jubul ma làmb pexe mi. ba juróom-ñeenti weer yi far mat. léegi nag su juróom-ñeenti weer yi mate nag. nga ne nag cëgg desatul ci guy. naa def li fi sës. fekk loolu sësu fi. SOS a ngi fi. feneen ak feneen a ngi fi am na koo xamante ne keroog ba muy takk jabaram def na ci ay millions. ba mu ko takkee léegi dépensé na ay millions ci gynécologue yi. ak ak hôpitaux yeeg fenn fu nekk yàlla mayu ko takk ndeer demal nga seeti nit ñu baax ñi nga waxtaan ak ñoom am na ñoo xam ne am nañ njaboot mais yàlla may na leen xolu tëyal la sa doom nga dem seeti leen mais xam nga sénégalais mooy koo xamante ne man gëm naa ne sax nañ ma baal mais gis nga bis penc bu xeet yëpp di ñëw yàlla day taxaw pour àtte leen mais bu sénégalais di ñëw yàlla day toog. moom dañuy wax ba nangu sees ba ci. Mhm. ñoom sénégalais yi gis nga démb bii de bu bees sànq la bu ma daj ci paquet. démb may waxtaan daal sañ nañoo ne yàlla bokk nañ ci ñu naan c'est-à-dire. gis la may ma ma wax la. su fi wàccoon ñu baab ko ba mu sant njaay wala Diop añee ceebu jën. maanaam de c'est li may wax li faral di wax nii. Mhm. xam nga ñaa ngi ñun julli di woor ndax àjjana mhm. ñun Sénégal suñ demee ajana àjjana suñ leen yóbboo àjjana da naan moom ndekete lii mooy àjjana dañ koy xeeb. Oh. dañu koy woyofal dañ koy xeeb daal xaar ma seeti sawara ba xam. yooyu xeet yooyu yëpp day am du doyul maanaam du doyal maanaam loo ko jox rek ma ngi séntu lu ko gën a garaaw ca kanam. Oh. loo ko jox rek loolu bon. bon mën na dem am na fu muy baaxee nag am na am na am na am na fu muy fu muy fu muy bone dem bi ñu paree émission dafa am benn waay bu nekk bitim réew bu ma woo mm-hmm. mu ne maa ngi sëy naag sama jabar lu yàgg-yàgg amuñu doom doy baan koo gis ku nar a doo sànni doom dimbali ma jox ma woo dimbali ma mu la woo ma mu may ma doom ji même su fekkee mu ne man dama am plaisir sama jabar yor xale ma di ko gis ma ko gisu gis. eh allah di ko yar. eh allah mu nekk mag même su nekkee mag sax su bëggee ñibbiwaat ci yaayam oh. garaawul. mais man dama ah, bëgg. ndeysaan jaawi ah, démb la waa allo ndeysaan allo. allo allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ajaratu bisimilah yaa ngi ci émission wareef. ñu ngi sant yàlla te di kontaan ci jot la. maa ngi leen ngeen ngeen baal ma ci sama man je me suis dit le problème n'est pas là. Mm. sama ci sama xalaat le mm. problème c'est manque d'éducation sexuelle qu'on n'a pas en Afrique mm. mm-hmm. parce que problème bi yëpp mooy les choses sont taboues ici mm-hmm. am na yu bari loo xam ni mm. ñun nit ñu yaree duñ ko jàngal suñuy doom dëgg la bu ñu tollee ci jànq duñ mm-hmm. leen wax li war léegi nag euh, fi mu nekk ni amaana sax dina jàng école même école li nga xam ne war nañ ñu ko jàngal ci éducation sexuelle duñ ñu ko wax dëgg la donc nag ignorance boobu pour man mooy indi lii lépp. pour man euh, bu fekkoon ni amoon nañu ay conseils à la base. bu fekkoon ni par exemple euh, mën nañu def benn centre de prévention boo xam ni ku ci mënul wax ak sa yaay mënoo wax ak say mag mënoo wax ak say tante nga sol sa dàll dem ba ci foofu nga xam ni kenn du la xamal. nga dem expliquer leen ses soucis. ñu lijjanti la. Mhm. donc euh, moo xam ci éducation sexuelle la moo xam ci prévention la moo xam mhm. aussi ngeen baal ma ci anticiper li nga xam ni mooy infanticide bi pour mun ko éviter bu fekkoon ni solution boobu pour man. Mhm. def nañ ko. amaana lii lépp. du am yegg. voilà parce que ki nga xam ni mu ngi ragal papaam génne ko këram. wala yaayam génne ko këram mhm. wala fa mu dëkk bu buñ ko yëgee amaana ca mbedd ma la jëm wala wala tumranke na wala jàngam yàqu na wala kii mhm. lii xalaatam te xam na ne ku mu ko wax ñu siiwal ko mhm. donc mi ngi dundee loo xam ni di ko denc di ko denc di ko denc ba yàlla may ko doom la muy xalaat rek mooy sauver sa peau c'est pas en fait pour man de le problème c'est donner donner xale bi euh, euh, damay rey xale bi yow dans ta tête mhm. dans ta souffrance parce que pour man souffrance la mhm. la personne qui fait ça n'est plus euh, normale c'est-à-dire cette personne-là se dit si jamais mhm. lii ñu yëg ko ci man si jamais dome bi génn donc man maay sànku léegi nag le fait que la personne se dit man maay sànku donc gisatul ne infanticide lay def donc elle fait juste pour sauver sa peau pour man noonu laa ko gisee donc nag manque d'éducation bi war nañ ci waxaat parce que tamit nañu waxante dëgg voilà mondialisation dafa am mhm. loo bëggu tax luñ la xamalul euh, fi mi nekk internet yi dinañ la ko xamal photo yi dinañ la ko paas téléphone yi dinañ la ko paas donc nag pour anticiper tout ça il faut déjà qu'on ait une éducation pour nos enfants mmh. l'éducation voilà pour man cette éducation est primordiale si on veut éviter ça mhm. man nag voilà amaana nag <laughs> ngeen baal ma. déedéet sama xalaat man noonu laa ko gisee. indi lu am solo. wala pour man noonu laa ko gisee. Mm. parce que bon man gisuma fenn fenn Sénégal du sax Sénégal pays d'Afrique rek on on parle d'infanticide dans les pays sous-développés. Mm-hmm. en Europe doo gis kenn ku sànni liiram. Mm-hmm. parce que fi mu nekk bu la dara jotee balaa ngay am un mois am nga retard. dem nga seeti médecin sa yaay yëgul sa baay yëgul amaana sax euh, euh, euh, sa surveillant école mm-hmm. am na infirmerie école boo xam ne boo demee ne ko j'ai pas vu mes règles dina ne la ok date de dernière règle nga expliqué ko mu kii la bu ko defee mën na la jox loo xam ne amaana deux semaines avant même quoi que ce soit géré nañ la te kenn yëgul mm-hmm. fii nag amoo kenn koo waxal comme li ngeen doon wax léegi ku la siiw fi mu nekk koo wax rek ragal nga ne fi mu nekk mu siiwal la. donc mhm. comment voulez-vous que les gens puissent avancer puissent évoluer puissent avoir une moralité sans pour autant avoir cette éducation là éducation bi pour man c'est primordial. Mhm. voilà loolu nag moo doon sama participation. très bien participation bu rafet bu rafet bu ñuy bu ñuy nangu. Mhm. di wax ni mi ngi wax sànq ne amaan euh, xale yi amuñu aussi fu ñuy dem. peut-être mhm. li mu wax yëpp nag dëgg la duñu mhm. ci on est d'accord on est pour cent yes. waaye am na itam ay centre euh, mami am na ay centre yoo xam ne xale yi bu ñu jaaxlee. am na ay bàjjenu gox. am na ay nijaayu euh, bàjjenu noonu la de nijaayu gox bàjjenu gox yooyu yëpp léegi teg nañ ko waaye xëy na yëf bi dañ ci war a gën a dolli ndax ñëwi ñëwi bàjjenu gox yeeg nijaay gox yi mu mel ni am na solo kon. am na solo torop man maa ngi la ko wax keroog su ma amoon ay moyens <coughs> dama ubbi ubbi ay bureau yoo xam ni ñi may recevoir nii ci mbedd mi. Mhm. fa laa leen di recevoir. mais gisal gisal Mariam Faye Sall si tu veux. <laughs> fu may gisee Mariam Faye Sall. ah Ndoye Bane tu veux me dire que boo bëggee gis Mariam Faye Sall doo ko gis. Oh, fu ma koy gisee. ah man man sénégalais laa comme sénégalais lam daay yëpp. waaye boo toppatooyee da taxaw ci bunt ba fee danga nga ko gis de man ci sama philosophie bu yomb loolu moom du ko def ah, topp mais il faut voir il faut nga gis leen. loolu moom du ma ko def hmm? jamais loolu nag maam maa mag loolu nag. taxaw nga bu di xaar xam nga li ngay wax nii waxin la waxin la rek waxin la waaye li ngay wax nii mat na. nekk projet non non c'est que man sama projet la boo xam ni. Hmm. man li ma nit ñi di nettali. duñ ko nettali seen papa duñ ko nettali seen yaay duñ ko wax police duñ ko wax gendarmerie man li may yëg information bi may jot par jour mm. li may jot ci information par mm. jour mm. góob ma ni sax renseignement généraux yi nu ma la tuddee du CS. <laughs> ma ni góob <laughs> <laughs> ma ni renseignement généraux ko jot. Mm. nit dina jóg pour def njombe. Mm. ñëw li ma li mu bëgg a def yëpp ma génne ko ci ba mu set. wala nit am lu muy dund lu mu mënta wax papaam ak yaayam man ma ànd ak moom wala ma toog dem ba seeti papaam ak yaayam li jënti ko ba mu ni correct mm-hmm. jàmm ni kii te coow di jëpp kenn du ko yëg. loolu nag moo manqué ci dëkk bi kooku sax dama la ciy tegal ne la ndeysaan wallaay pour te dire que xam nga àddunaa ni mel dossier yee bare mhm. Mhm. na la leer ne mhm. boo géré cinquante sa moroom a ngi géré ñaar fukk soxna si toog rek moom itam am xam nga yëf yi noonu la koo gis ñu ngi koy dénkaane papa Cheikh Diallo mu ndaw mi ci kër bu toogee dañu ko naan defal ma nangam kii wal ma nangam papa Cheikh te daa dégg man man xoolaa ajaratu dëggeen ci maire baabu mag laa léegi mag laa euh, délégué naa ko doy baan waaw mais nag daf kii wam bu bu kii nag. boo commencé wax yenn yu métti. mu ne oh, mag laa mami ndooy jëlal ma kii. bu keneen woote mu ne mami jëlal ma kii man damaa jëm mag yéen da ngeen di soog a ñëw jël leen. ndeysaan xanaa xamoo ne yàlla dëgg rek la bëgg. dëgg la man toll woon naa fi benn moment boo xam ne dama saturé woon dëggantaan. sa bopp da ngay dof. dama commencé woon sama bopp bi di jaxasoo parce que damay laajte lan moo xew ci réew mi et li ngay encaissé te doo ko mën a wax moom metti doo koy waxee. doo ko wax. Mm-hmm. et puis ngay jàkkaarloog ñi ko def nii nii nii te mënuloo leen dara. léeg-léeg nit woo ma ne ma mamee mamee ma jox sa numéro nee na ma woo wala. ma parce que da ngay da ngay tàmbali di wax ma dof di man la woon dooy bi mënuma ci dara. nga ndaw si du génne calmé wu leen tuuti ma ji waa ñu dellu ndaw si wax na intervention bi am na solo trop. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ajaratu bisimila Linguère sa ganango. asalaamaaleykum wa rahmatullah. allo. allo oui bonjour. soxna su baax si ñu ngi lay ziar. oui bonjour. Eva sa doom yi la bokk. sama doom yi. Mhm. sama ah. allo ñëpp sa doom yi la. oui. oui euh, j'aimerais participer. Euh, je vais pas durer. d'accord d'accord je vous en prie allez-y vous nous appelez d'où? Euh, je vous appelle de Dakar attends je vis à Paris mais actuellement je suis à Dakar. et passez un passez un bon séjour avant toute chose. Merci beaucoup, merci. Nous sommes à l'écoute. moom daa mel ne daw na. ah dem na. yooyu yëpp Eva liñ ci liñ ci bëgg a wax mooy. Mm. que centre yooyu. Mm-hmm. am na ci dëkk bi mais est-ce que dooleel nañ leen liñ leen war a mm-hmm. dooleelee. beneen bi ci des yaa ngi wax bàjjenu gox yi. Mm-hmm. bàjjenu gox yi dëgg la mais nañ leen jàppale. parce que ñoom it da gis ne lii dañ ci jàpp bu baax mooy da nga gis ko war a sànni doomam ñoom ñu jël ko téye wala ñu yóbbu la fa nga ko war a mën a maye. kon nañ leen jàppale. bu baax bu baax nuyu waa leen ndax moom itam nijaayu la <laughs> koo xam ne daal la ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di sargal ci wareef gis nga li ndaw si wax lu am importance bu baax éducation boobu bu am fa mais Sénégal la ñu nekk mm-hmm. Sénégal la ñu nekk muy enseignant baak muy policier baag muy gendarme baag muy keneen ak keneen ak keneen ak keneen soo am na ci ñoo xam soo lu ñëwee nettali leen seen biir day ñëw nu waa mais kee kee du jarbaatu ndoy baan mais ki fi jóge du jarbaat day ndoy baan sax benn jarbaat ñëw na fi ñëw na ma lii ak lii ak lii waaw wala sa askan. waaw am na ku def nangam ku def nangam ah oui ah affaire bi commencé euh, euh, siiw. Mhm. affaire bi grand fekk nit ki dafa am feebaram am am wala am jàngooram wala am problème am. ñu nettali la ko. yow la ci yaakaar ginaaw yàlla mm. lii ko nga jàppale ko ci gérer affaire bi mm. jéem ko jàppale pour que affaire bi réglé wu mais da nga koy wax keneen keneen wax ko keneen affaire bi siiw moo tax mm. Sénégal nit ñi di téye seen moo tax goitre yi bari fii moo tax yenn feebar yi bari fii moo tax ñuy moo tax ma ni li tax duñu seeti sii nañ leen seeti bu ñu jàpp ne sunu ay du sunu tradition wala du suñu culture. Mhm. ñooñu itam danu fi toog pour génne societé bi pour wax leen ñuy liggéey ci comportement wu doomu aadama. Mhm. kon boo amee problème mu comportement wala problème mu nekkin. Mhm. dafay jaa jaadu nga dugg ci hôpitaux yi. laajte leen ñu orienté la ma. mooy éducation mooy éducation bi femme bi di wax. te di dañ ñoo jàngalul amuñu culture culture culture. Mm. def loolu maanaam dem ci ñooñu noonu. xamuñ max ñooñu xam kañ lañ xam. Mm-hmm. ki ñu xam mooy chef de bi. ki ñu xam mooy. <laughs> wax nga dëgg nag borom gi jëwriñu daayira bi. wax nga dëgg ki ñu xam mooy bàjjenu gox bi peut-être dem nañ ba nga xam ne mooñ lañ ko nit ñi ba nit ñaa dem nañ ci bàjjenu gox la. dafa am ay nit ñoo xam ne ñoom lañ xam. ki ci pénc mi. ki dëkk bi. Mm-hmm. ñooñu lañ xam mais ay psychiatre rek ay psychologue psychologue ay sociologue bëggoo xam tur ya waaw xam naa leen. <laughs> mais ñooñu le sénégalais lambda xamul ñooñu. Mm-hmm. du wax ak ñooñu. su dee police ak gendarmerie nit ñi ñemewuñ leen. donc il faut mu am ay nit tey ji film nii li rajo yi. mais yow yaa ngi liggéey seen liggéey. waaw te yow am na fooy toll. Mhm. am na mbir fu muy toll pour man dafay jaadu ñu yóbbu leen ci ñooñu ñu tudd. tey jii je sais pas tey jii par exemple am na benn waay bu fi ñëw. waaw ni ma man da man Italie laa nekk. waaw mais man dafa am lu nekk ci man loo xam ne nit ñi dañ may xool di ma waxtaanee rek. nee na nit ñi moom daal di su demee ba fenn nit ñi dañ koy waxtaane mais xamul lu nit ñi di wax ci moom. xamul lan mais est bi mu dafa woo téléphone mën ko ñëwal bi mu ñëwee ma xool ko. Hmm. gisuma dara lu nit ñi di xool ci moom. <laughs> il est atteint. il il il est correct il est amul benn problème mu ne ma affaire bi mu ne ma nit ñi dañ dañuy wax ci man Italie Sénégal dañuy wax ci man tout le temps xam nga te man xawma li ñuy wax affaire bi def ko problème. mais xam nga kooku. wóoluwul kenn man la woolu wax ma ko. bi ma wóoloo man man ba wax ma ko damaa jàpp ci loxoom. ba ci psychiatre boobu ngay wax. ah di nga ma jox raison donc moom munul dem. Ah moom munul dem. mais man man mi mu wóolu. Ah. fu ma ko yóbbu mu dem fa. merci comprendre nga. waaw yow mi mu wóolu. voilà man mi ko yóbbu mu dem fa mm-hmm. léegi pour moom mu dem problème lay doon. donc il faut mu am benn intermédiaire bu baax bu lay jëg du du vous vous intervenez yéen yéen a ngi intervenir ah, ak yow mii di mooy li ma ah, lay mooy li ma lay tooñee bàyyi leen ma leen di ma leen di jox dossier c'est ça yaa nga ca ne da ngay nëbbatu rek mooy li nit da ngay gis koo xam ne goroom a ngi koy sàkku uh-huh. wala koo xam ni sa xaritu jëkkër mi ngi lay sàkku wala koo xam ni ëmb ngar euh, sa professeur ëmbul na la uh-huh. wala kenn ëmbal na la te mënoo ko wax te xam nga ni lii soo ko waxee coow am te su soo ko waxul doom bi mën naa juddu nga ray ko uh-huh. nga dem seeti ndoy baan ndoy baan man kat damaa def erreur waaw wala dañ maa tooñ uh-huh. wala sama doom sama goro lii moo may sàmm uh-huh. ba lii dal na ma ci xawma fu ma koy waxe ngeen toog waxtaane ko nga waxtaane ko ak ndoy baan ndoy baan dina jéem a trouver solution dina la njëkk xelal ni la teel ëmb bi dëgg la te bu ko rey bu rey doom ji loo informa loolu nga koy njëkk a wax def loolu ci bopp bi ba pare nag jéem a xool nag ngay trouver solution pour jubale ko parents mi pour jubale ko jëkkër mi pour jubale ko da ngay toog fi ça euh, xale bi ñu ñu ngi koy nuyu bu baax ndax démb ci ngoon vers 19h mhm. maa ngi waxtaan ak moom lu yàgg nee na ma wax ko mu dégg nee na mi ngi lay nuyu di la sant mhm. xam na ne danga bëggoon sànni xeer jigéen ñi rek bëgg tooñ mhm. mais que li ñu ko wax incha allah commencé na ko te mi ngi ci voilà ñeenti oui démb vers 19 voilà kook su tasee sëyam fu mu jëm wallaay fii da ngaa gis benn góor gu fi takk jigéen gu am jigéen gu am ay ñeenti doom ak juróomi doom waaw boo amee chance de mën naa am waaye dafa jafe soo amee chance su gars yi defatuñu loolu mais léegi nag ndaw su su ëmbee te mm. ëmb bu bees mm-hmm. te xamul fu mu jëm xam ne famille bi mu yor yow ki mu ñëw wax kooku mm. mooy dem mm. régler affaire bi dem seeti papaam wala seeti yaayam wala seeti jëkkër fii la ñuy toog nit jigéen day toog fii am problème ak jëkkëram jox ñu numéro jëkkëram ñu woo jëkkëram ah, di def ay médiation ba mm-hmm. affaire affaire bu fekkee naa ko ba taayi ndeysaan te kenn du ko yëg. dëgg la dëgg c'est loolu dina tax bomb yu ñu nit jóg doon nar a def nar xaru. bàyyi ko. Uh-huh. gi nga waaj a jóge woon Gambie. Mm. gars yi dóor ko cent cinquante million fekk ko fa Gambie nax ko lekk cinquante million mu dem Nord Foire fii takk buum war a xaru. Mm-hmm. dund nañ ko fi. voilà takk buum nar a xaru uh-huh. mais dañ cee jóg di ci wax di ci wax di wax ba ñu demee ca saal ba te kër ga mu nekk. fekk nañ fa buum ga nam ko takkee sées ba mu tegoon pour pour xaru ah, te mi nii xaru xaruwul mi ngi dund dundam dund nañ ko fi ànd ak gëm yàlla am xaalis bi ñu la lekkal yaa ko liggéey mm. léegi mën nga koo liggéeyaat maa la wax li ànd sa bopp lor sa yaay lor sa baay ñàkk koo waxal rek voilà ndigal nag ñu seeti waa kër yi maa aussi c'est tey bu ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi Cissé Ngare ñu ñëw leen nuyu ne la bisimila dugg nañu biir régie jërë ngeen jëf mbokk yi ñu dellu si waat rek ci ñaareelu partie seen émission wareef boo lekkook nag di leen sant ci seen ay woote waaye gën a woote itam joxe seen xel ak seen xalaat dana gën a neexal yëf yi. Mhm. waaye nag faaw ñu taxaw ci ndaw si woote France li mu wax ñu ngeen nuyu képp ko woote France tey Mariam Cissé sunu yaayu bopp kor Sana Camara nu ngi koy nuyu. Mhm. Euh, Ndoye Bane. Mhm. éducation sexuelle dana ci war a def focus. taxaw si pour yaraat sunu doom yi. boo xam ne balaa ngaa dikk. ba doomam yi demee ba am nu nu toll wóolootu leen ci dara dafa daan jël préservatif def ci seen seen seen porte-monnaie yi mhm. ndax xol bu jeex la ko defee mhm. mais moom xelam sa jamono boobu loolu la woon mhm. parce que wóoluwul sax doomam yi doonte ñu baax la nu woon mais loolu loolu loolu nag ah. loolu nag man bon du ma ko conseillé gars yi ma xam ne lan la dëgg la diine ji <coughs> waaw diine ji waaw dara gënu ci gën dara gënu ci diine ah. fexe say doom am diine mm. a ngay wax ak ñoom wax wax ak ñoom dëggantaan ngay toog ci biir kër gi di wax ak ñoom waxi dëgg waxi leer naññ mm-hmm. su dóor ci taabal jotee nga dóor ci taabal ji mm-hmm. su yar jotee nga yar su raay jotee nga raay su fecc jotee nga fecc mm-hmm. su kaf jotee nga kaf mm-hmm. su wax dëgg jotee nga wax dëgg mm-hmm. doo nekk sa kër nekk policier tey da ngay nekk saa neex suba nga nekk commissaire ginnaaw suba nga nekk nga nekk oustaz bokk bokk na ci CV yaay wala papa papa léeg-léeg nga nekk pâtissière comme nu ñu koy yóndee c'est ça nga nekk léppkat voilà su neex neexal jotee nga neexal waaw mais su génnee liif gi jotee nga génne liif gi taper sur la table su comme su yenn saa nga nekk comédien yenn saa nga nekk seen fecckat noonu la affaire bi noonu la hmm. mais boroom kër su ne tëll ci kër hmm. su su gaaree otom wala mu fëgg waa kër gi ñëpp dañoo war a defaraat seen toogaay hmm. soo ñëwee nag yow sa bopp ci sa ay ci sa ay ci sa ay ci sa kii daal ci la kër gi ci la xale yi di di di mais bis bu nekk xale yi fu la tàggu nga bàyyi leen jéem moo lijjanti seenum njàng mm. am na si ñoo xam ne xamuñu seen doom yi ban classe la ñuy def mm. mm-hmm. am na ci ñoo xam ne xamuñu seen doom yi ban école la ñu ne la ñuy ci dëkk bi mm-hmm. am na ci ñoo xam ne xamuñu seen doom lu ñuy sol suñuy xëy dëgg la waaw muy man ak sama man heure bu samay doom yi xëy di jàngi maa ngi <laughs> maa ngi toog suñuy solo maa ngi toog suñuy mm-hmm. génn maa ngi toog suñu génne sax tax naa ci balcon bi tiim leen xool ni ñuy demee yàlla na nga ko yàgg def. macha allah te que loolu. Mhm. loolu dafa sàmm la da nga war di. lu lu lu lu ci yàlla indi na nga xam ne yàlla lii la indi. mais yow def nga li nga xam ne waslul àq ba noppi maanaam moo moo la moo la war. Mhm. et bul tëj sa kanam ba sa ragal sa doom yi ragal laa wax. Mhm. lu ñuy dund. xam nga. Mhm. wax nan la nan la ñemee pour que suñu amee dara lu lay wax. Mhm. ñëw ni la papa papa kat lii wala mhm. yaay lii waaye nga nekk commissaire si biir kër te soo seetloo. ñii commissaire commissaire yu seen biir kër yi ñoom ñëpp suñu génnee ñooy toj mbedd mi. nooy toj paa yooyu di ñàng ci biir kër gi nga xam ne. kenn ñëmu leen a wax sax xam nga fu ma doon bëgg rebondir maa ngi la doon bëgg a wax euh, xanaa dafa am njaayeen bu dugg ci plateau bi du sonal ma mi bàyyi ko waay bàyyi ko. néeg leen leen ma jël téléphone bi ba noppi. Mm-hmm. <coughs> balaa maa rebondir ci li nga doon wax ndax dama doon dellu gannaaw tuuti. bisimilah mbokk mi salaamaaleykum. maaleykum salaam. ajaratu. na ñu ngi sant yàlla. maa ngi sant yàlla bu baax. boole teg nag kontaan ci jot la balaa ngaa ree nu ree <laughs> <laughs> bisimilah bisimilah. di bëgg wax rek euh, si thème bi ngeen jël. Mhm. ndax euh, di nuyu Ndoye baan di nuyu mami di leen nuyu euh, Eva. merci beaucoup di wax ne thème bi képp kuy nit kuy yar da nga si war a dugg. Mhm. ndax man je crois sama humble avis laay wax. Mhm. yar yi ñu ngi commencé tamit si waajur yi. dëgg la boo seetee suñu mag yu njëkk yi suñu yaay yu njëkk yi niñ doon toogee. Hmm. nañu doon soloo. ah sax mi nga sama lañ ay wa bisimilah. Hmm. très bien xamante ne. fa doon dem. seen doom yi. Hmm. Uh-huh. ñeme buñ ko woon de gis. wax nga dëgg. parce que am na ñoo xam ne nga baal ma si wax ji. bisimilah ñu gis seen testanu yaay sax munoon na am. wallaay problème feewoon na. Uh-huh. mais léegi. soo gisee yaay bu tey ab doomam bu jigéen. mu def seere mu seere. foofu am na foo xamante ne bu ñu jëmee sa kanam ba xale day mag. du amati ndoxu bët. donc yar bi si la bokk si col bi si yar bi si ni ñuy waxee ak si ni ñuy toogee ak borom kër yi si biir kër yi dëgg la parce que defe naa ne yaru nasaraan bi hmm. daf fi sax sax boo xamante ne ba lu bare mi ngi fi am hmm. donc loolu defe naa bu ñu yaree suñu doom yi yar leen si niñ koy defee hmm. ah ëllëg nga ne ah man day yow xoolal sa sa doom bii xam nga mat ñi du jullit bi du dara muy naa ñeenti jabar. Mhm. dafa am lu tax mu koy wax. Mhm. parce que soo nee royal ci sa doom yi eh, tante ji. Mhm. xoolal kii ni mu mel yooyu yëpp a jàngat la rek. jàngat la mais je crois que éducation de base bi su amee. waaw amaana na. xale bi mun na seet leneen lu muy def balaa mu siy dugg. ngeen baal ma xam naa ne am na ñeneen ñi ci ligne bi. waaye sa mbir mi am na solo li nga fi indi kay am na solo. waaw bu buñ ko xoolee daal amaanan. Eh. ah dina baax. Mhm. incha allah. Mhm, dafa wax rek lu ma waroon a wax. Mhm. nee naa baay bi nga xam ni tey. bu dee génn mook doomam bu jigéen ñooy ànd bu dee taxawaalu doomam bu jigéen lay àndal kooku fu mu yaree wala doomam bu góor moo xam bu mun ci doon eh, ndey ji nga xam ne yow sa doom xam na sa ay kirij karaj yaa nga ca lii yaa ngi ci ruubale yaa ngi ci njublang yaa ngi ci mbir yooyu fan ngay defaree doom yu baax mhm. ndoy baan mhm. fan ngay defaree doom yu baax mhm. parce que yow sa doom yi seen bopp xam nañ ne sama papa mii kat am na dëng bi sama yaay jii kat am na dëng bi bu nu xëyee dëng bu mu la jaaxal parce que loolu rek la xam te nit ki lu mu xam rek lay manifester moom lay génne femme yaa di di farantu du yónni seen doom yi yónni ah voilà ci seen fari Ah, très bien nga nekk yow amoo jëkkër nga tëjoog sa far kañ ci biir néeg sa doom yi nekk ci saal bi. dëgg la xam ne sama sama yaay kat kii mu tëjool ci biir néeg bi. dëgg la du du du jëkkëram. dëgg la mais xale boobu soo ko bettoo mu tëju. dëgg la ko wax dara. dëgg la soo ëmbee bu ko bu ko bu ko wax dara. ñun ñu tege kaw dafa bare de jóg. waaw doom ja day lépp yow la ko jàngee maam daf daan wax naan bu xoj ak xamee wopp jasit bara ko ko. bara ko ko wax bu xoj ak. xamee wopp jasit bara ko ko. luy xoj <laughs> bu ñu wàccee ma tojal do di nga ma ko wax kee ngi ci jéere ji waaw kee ngi ci ndox mi waaw ay rabi lañ yoo xamante ne kii ci ndox mi lay dëkk jasit ci ndox mi lay dëkk waaw kii ci jéeri ji lay dëkk mooy ci suuf si lay dëkk kii nag moom mënee na suuf si mënee na ndox mi mooy dem mooy dellu waaw xam nga xale bu jigéen bi nga xamante ne su papaam dee mbaraani moom la yónni ca ndaw sa ay nag yi muy àndal lay may papaam <laughs> kooku ku muy gori tànkam ku dul yaayam ki nga xamante ne damay seetaan barki dem man ak caat benn euh, film ñàkk yi. caat Diop waaw. jékki-jékki xale bu jigéen bi papa ji da koy téye ci biir kër gi. Hmm. doo génn ñoom benn restaurant la ñu yor demal nga liggéey ci demal nga liggéey ci. Hmm. di harcelé xale bi fu mu toll. Hmm. xale bi di génn ànd ak beneen xaritam tourné yem ci papaam muy kottante kuy liggéey ci restaurant bi. oui moo tax mën na ko du génn. xale bi non non xale bi nag léegi moo xoj papaam ci put mooy léegi xale bee nekk chefu kër gi ndax mooy def léegi lu ko ah, xam sa ngoro baay wala sa ngoro ndey kay nu la neex léegi nu la neex ngay doxee ci biir kër il faut le léegi tamit xam nga xale bi nga xamante ne da ko yor muy sa doom ji jigéen ah. commencé di gimmi ndax doom ju jigéen jàngaaniwul ndayam mooy royukaayam mhm. commencé di gimmi ba commencé dëgër mhm. gis na que ne yow mii yaayam ëmb nga ci biir kër gii mhm. mu xam ne lii ëmb la bu baax mu xam ne dañ laa ëmbal mu di ko xool ngay dem ak a ñëw mu di ko xool ngay dem ak a ñëw ba mu xëy gisatul doom ci yow mm-hmm. wala ba mu xëy nga yor doom jooju mu la ko yor la di la ko naf na feen mais su ëllëgee da yaakaar leçon ba jàngoon ci biir kër gi da ko war a tari c'est la vérité parce que moom dafay jàpp ne loolu lu normal la mm-hmm. xam nga yow mës nga fi am benn xale boo xam ne nee na la mm. nijaayam da ko doon tëddee mais daf ko doon wax naan ko as xeet nii la boo nekkee xale sa nijaay mooy njëkk ci yow noonu la ko doon naxee di yegg ci moom chaque jour mhm. donc dafa am ñoo xamante ne ci seen xel li ciy dox nga dul xam lan la mhm. Mhm. moo tax yaay dafa am nu mu war a mel bu baax mais tamit nit ki dafa am fu muy toll bu mu am càmm ñu yaama neex muy ñëw sa biir kër. Mhm. say doom teg seen bët boo yoree yenn doom yu mag yi. Mhm. muy ñëw sa biir kër tamit ngay jël say doom di ko yónni ci moom demal sa nijaay nee ko may 10 000. Mhm. demal sa nijaay nee ko 100 ma di la gis ngay bëreeg ñenn ñi. mais xale bi dafay jàpp ne moom loolu lu normal la. fi mu nii instant bi may wax maa ngi ñaari dossier yoo xam ne kenn ki Dakar la. ubbil nu ko nu xam ki Dakar la. keneen ki ci des nekkul Dakar. kii kii yaayam dafa am. dafa dafa amu ko ci sëy ku jigéen ki. yaayam amu ko ci sëy amu ko ci sëy voilà dañ ko dañ ko ñama yàlla baal ci kàddu gi dañ ko ëmbaloon waa moom jànq la magum jëmm la fin mi nii waa yaay ji ambaat ñu ëmbalaat ko mu am ci ay seex moom yaay ji toujours voilà ne seex benn moom xamul ko ëmbal yaay ji xamu ko waaw yaay ji tamit waxul kenn dara seex yi kenn kaa nga dëkk ba ki ci des a ngi woon fii waa nee na un jour nee na ndaw si nee na ma fan yi passé rek boori gàmmu gi mm. dafa dafa demoon gàmmu ji bi mu ñëwee mm. gisul beneen seex bi ji tuuti la. waaw gisul beneen seex bi. mu laaj ko yaay ji yaay ji waxu ko dara. waaw mais film nii nee na problème am mooy. te te ay sa dun doonu lu mu ko sànni sànniwu ko de mais xam ñàkkul ni da koo maye wala mu jaay ko wala fii ci dëkk biir ndakaaru biir ndakaar gi ndaw soosu bokkut ak seex yooyu bàyyi de mais problème bi da koo nee na rakkam yooyu rakkam jooju. anam moom anamu moom la nekk di wër yaay. te dafa rus yaay ja ba mënu ko ko laaj. mënu ko ko laaj ki gën a rus yaay ji mooy. keneen ki nga xam ne démb leen doon wax. nee na yaayam dafa am doom. waaw doom mu ne nee na xamul kan moo ëmbal yaay ji mais doom ji boppam doom ji genre chinois yooyu la. Mm. nee na doom ji comme comme comme chinois daal la nee na xaritam yi sax chinois lañ koy wooyee ak ak ak ak noonu lañ koy lañ koy wooyee xaritam yi football ndool noonu lañ koy wooyee mais problème am mooy mu am kers am na kersa laaj yaayam kii kuy baayam. mu ne ma man dafa bëgg ma jàppale ko man pour mu xam papay xale boobu. man ko papay xale boobu. maanaam yaa ngi ak sa sa doom sa biir kër. waaw muy posé wu. tellement d'interrogations tellement de questions. yoo xam ne wallaay laaju la ko. mais mi ngi posé wu ay questions am na ci ñoo nee na woon fii am na ci jigéen xale yoo xam ne am na xale yoo xam ne tey jii ku leen woo woon tey ji de ku leen ni woon tey ji ndax ñu changé la yaay ñu changé yaay maa la ko wax seen yaay ji leen yor yi ñu yor gënu je t'assure xale bu jigéen mi nee na xaw ma fu may jaar sama yaay est-ce que pour laaj ko question bi dama bëgg nga jàppale pour ma seet euh, papay xale may ma tuuti ma dem à la régie ndax euh, sa sa élément bi bu disponible ñu teg ko balaa noo dem nag daf hmm. ciy neexal yëf yi effectivement waaw ah ah hmm. maa aussi c'est dikkal maa wa dikkal <laughs> bàyyi leen jàmm bàyyi sa may ma dàqee ma daal di ñëw toog ndax collège laa doon def ma daal di ñëw toog. daal di daal di xaar ma jàpp ci yàlla rek di jàppale sama yaay léegi sama maam daal ni sama papa daal ni faraforce moo may jël léegi daal may jël yóbbu ma seen kër ma nekk fa léegi nekk sama maam moo ma yar. Uh-huh. ba man ba ma ba ma sama yaay su ma demee liggéeyee sama yaay su ma dikkee dañ ma daan jàpp doon moom may bëgg a dee. Uh-huh. léegi ba un ma sama yaay daal di ñëw jël si ma ni ma mooy moo may yor. Mhm. sama maam nag li ma sama yaay jël si daal koy naqari mu daal ni man maa jël cent mille daan may booleeg police yi police yi daal may ñëw jël si ma suñu kër ma noonu tamit daal may yóbbu léegi bi ñu ma yóbbee ma daal di fay am trois jours sama benn tànta boo xam Espagne la nekk daal di ñëw daal mhm. daan leen bàyyi leen ko sama jarbaat la deful dara kooku avocat la mhm. deful dara bañ bàyyi ma léegi ñu ma bàyyi ma daal di ñibbisi mhm. daal di toog daal di toog suñu kër toog sama yaay mais fu ma romb sama maam mu naan ma doomu viol bi ak doomu bi di dem sama xarit di leen ko wax loolu naqari ma mënumaa toog fenn ma ni xaaral ma dem daal di ñëw fii Dakar toog daal dem kon sa yaay génnewu la sama yaay génnewu ma ma daal dem Colobane toog fa fan yi passé benn jànk bu baax bu fekk ma fi daan may jël yóbbu ma léegi daal di daal di jël sama numéro yaay woo sama yaay sama yaay naan ko sa bi mu fi nekkee chaque jour Paris la daan nekk la daan dem bul ko téye ndax kooku bandi la yoon bu bon la bëgg a jaar lu nekk kooku sama yaay wax ko kooku ba kooku daan ni ma daal di désolé quoi ni ma demar rek démb sax laa ñëw. Hmm, yow jàngoo. jàng naa kay. ban classe nga yam. C2. nga yam. sa papa ana moom kañ ko gëj a gis. sama papa mu ko gëj gis yàgg na. Mhm. kon yow da jàpp ni dañ laa jur sànni la. loolu rek laa jàpp kan moo la sànni. sama man daal ci sama dépense sama papa ak yaay la ndax sama yaay nee na ma ñëw këram. Mhm. ndax mën naa tas sëyam te yàgg yàgg jëkkëram jooj damaa wóor ni dina ko bàyyi te man yaakaar naa du ma ko musa bàyyi ndax man rek maay doomam. Mhm. man maay taabam ba pare mu jël ma def ma nii. ci mbedd mi ngay fanaan. mais ci oto yi yàqu yi ngay fanaan. ak danger bi ci mbedd mi yëpp noo ko gisee yow. am mosoo cee am ay problème su ma cee am ay problème waaye un jour. bande yi du ñuy ñëw di la jéem a saakoog yooyu. waaye un jour benn benn mandikat mu fekk bu dul woon ki garde ci kër gi dama doon def def loo xamante ni kenn xamu ko. ndax dafa ñëw fekk ma fi xoj ma léegi ni ma yuuxoo garde ñay nekk fi daal koy jéggi daal daw si ñëw fekk ko fi daal koy dóor. léegi mu moom maag mandikat bi daal ne maag moom ñoo bokk ndey ak baay dama yóbbu suñu kër. Mhm. léegi gardien daal ko dàq ji ak ay cour looloo tax mu bàyyi ma. Mhm. ok d' accord fooy lekkee. fii rek ku jot yi sa papa ak sa sëy. nun la jure. man daal sa maam sa lu tax sa maam naan la ay viol yooyu nag. sama maam loolu la may wax. lu mu lay wax. damay gis su ma ko gisee si mu naan ma doomu ëmbal ngaak sa yaay yamul woon su war a yam bañ ko ëmbal ko. sa boobu lu mu jur sa yaay la jur. sama sa papa la jur. Hmm. ok d'accord sa yaay kañ nga gëj a jokkoo ak moom. sama yaay démb rek dégg naa ko. lu mu la wax. parce euh, dafa dafa ki ma nekkal di wax ak moom léegi samay kooku daan ma koy jox moo daan ni ma ñibbisi hmm, ñibbisi ma daan ko. yaay man mënumaa ñibbisi parce que sama maam mu daan ne ko génne ko sa kër ndax kooku baaxul. Mhm. léegi kooku daal di ma demal ci biti génn daal kooku daal di ma danaa jox paas nga dem fa nga nekkoon. Mhm. léegi ma sama ah, xanaa amoo amoo ay ndijaay ay ak yooyu rakk papa ak yooyu. famille yaay waxi waaw ah, mais yow sa famille sunu sikkeet yow it yow it sikki nga de. léegi lan nga bëgg ko bëggoo dem ci sa yaay buggoo dem ci sa papa buggoo dem ci sa maam. maanaam mënu maa dem si moom suma yaay nee na bu ma ñëw këram ndax damay tas sëyam mhm. sa papa gisoo ko sama papa nee na mu taseeg man ci mbedd dina ma lu tax hmm, loolu dana ma sa maam ni sama maam moom nee bu ma dikkat te buntu këram sax bu ma fa taxawati xam nga nag <laughs> nee naa leen léeg saa yi dafay baax. Mhm. danaa wax tuuti lu reetaan lu même si c'est pas drôle. Mhm. nga xëy rek sol sa benn léppi Guinée sol ay padam njaxe dem toog ca àll ba yor sa lekket daal bàyyi bàyyi bàyyi àdduna ndax la vie est difficile ndoy mhm. baan xale bu ndaw dem ba miin mbedd mi ndeysaan ami mbokk. ñu génne ko mi ngi fi mi ngi fii mi ngi fi man nag man nag parents yi la la la la la kii si jaayam mi ngi seetaan xale bi Cees la dëkk. papa ma ngi dund yaayam mi ngi dund. maamam mi ngi dund xale bu toll nii mënul te baayam të yaayam. Oh, oh. lii moog jur sa doom sànni ko ca foos ba ñooyam. ah wax naa ko nekk wax naa ne xeetu infanticide dafa ba benn femme fekk na ko jur dénkaane bañ a dem bàyyi nit ki mu dem. dëkk ak dëkk ak dëkk. kooku benn benn benn femme fekk na ko fi gis ko nu muy dundee jël ko yóbbu ko këram. mais ça jox ko yére def ko yëpp. ne ko nag il faut nga paas jox ma sa numéro yaay ma woo ko. waaw mu woo femme bi woo ko kooku ngay fat sa kër yaay ji moo ni moo ni waa ndaw si kook ngay fat sa kër baaxul guddi baaxul bëccëg ba may bañ mu yóbbu mu mu mu indi la fi ay problème ndaxte bi mu fi nekkee police police toujours ma nga ma nga ma nga ma nga police yaayam yaay juy wax loolu yow yoroo sa doom ba mi ngi nekk ci mbedd mi nit ñëw récupéré ko yóbbu ko këram sànq ko ba mu set bëgg koo yor ngay wax sax leneen mais bul yàq sa deru doom ni ko ba ndaw si génnewaat ko jox ko paas mu delluwaat ci ci ci àll bi baan ma bëggoon ñu dellu si rek ah, ci benn paramètre bu ndaw mami ah. Linguère oh. mm-hmm. di wax doo xale yi ne xas ka nekk dañu dañu ñu baal ma dañu ëmbaloon sa yaay euh, sa baay nii la la amee kooku engagé wul xale bi parents yi nga xam ne ñoo def seen seen yëf nan ma baal. ñooñu la engagé mais xale bi nañ ko may chance. mu defar àddunam continuer vivre. mais est-ce que dafa war a porter fardeau boobu moom te deful daal. non non mooy li Ndoye Bane naan gone yi ah. dañuy fay nen yu ñu omletut. ah non nen yu ñu tojul. xam nga nen yoo omletut nga fay ko. dëgg la fekkee woo ba ñuy lekk omelette ba raxas nañ palaat ba pare nga soog a judd. Mm-hmm. yow bu fekkente ne dañ la ëmbal. Mm. ñu baal ma ci kàddu gi. Mm. yow yaa demoon lijjanti ji sab ëmb. Mm-hmm. yaa demoon lijjanti ji sab dugganteeg sab xamante. Mm-hmm. bu fekkee ne dañ la violé tamit booba xale ba sosuwul amu ca benn kàttan amu ca benn dogal nit ñi nañuy nangu gëm yàlla xale bi nañu ko récupérer waat delloo ji ko ci ay mbokkam mhm. mais lii nag dëkk bi dafa am yoon mhm. xale bu majeurul amoo droit te Sénégal la ñu nekk du sa doom dafay majeur sax nga génne ko sànni ci mhm. mbedd mi mais lii yoon a ci war a taxaw wax mooy dañu war a jàpp ndeyam wala ñu jàpp baayam parce que maamam sax mën naa ne ku ñëw la rek après mais ndeyam wala bàyyam moom yoon dafa war a teg ci ñoom loxo mm-hmm. ñu jëlaat seen doom ñu fataat ko ndax xam nga lu tax xale bi maana day taali buñ ko loree ci mbedd mi mm. ñëpp jóg taxaw ne xale biñ lor ci mbedd mi dëgg la su boobaa mu nekk doomu ñëpp dëgg la suñ ko defee leneen ci mbedd mi mu jël doom jooju sànni mm-hmm. ci kaso bi lay mujj dina fa yàgg te du gis ku ko lijjanti mm-hmm. ndayam ak baayam xale bi fëggul woon seen biir ne leen damaa bëgg a judd ñoom ñi ko jur ñoo am responsabilité wu yor ko te nañu xam ne lu suur bajantu ba mu des ab xaal en tout cas daal maa ngi ci beneen beneen yëf bu ma ci dolli joxaat ko ndoy baan balaa maa tëj ci maa woog ñi xamal ne waxtu bi jot na mhm. yow itam xale bi bu dee ne sa way jur yi dan la am ci anam yoo xam ne ñaanuñu ko woon faudrait pas que nga posé wu ay question yu bare yoo xam ne dañuy dem ba yàq sa àdduna yow am nañ la indi nañ la itam kenn demu la ca mbalit ma kenn rayu la contenté wu ci loolu fexeel nga nekk kenn ndoy fexeel nga doon dara mais sama yaay li tax mu am ma tel année diw la ma amaloon nangam la ma amaloon oh. ku la ci téye daal muy wat way jur te toppatoo la dimbalee ko loolu xam ne téye na la sànniwu la aussi ah, ndoy baan waaw man damay interpréter ñoxobaay parce que wax dëgg yàlla mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci xale yi. ak waa centre Guindé ak waa centre Guindé. ñoo ko bàyyi Diouf en attendant ñu ñëw récupérer xale bi en attendant. d'accord nañ comme ni mu defee woon. femme boobu ak doomam yi ñu dem récupérer ko. ani femme bi comment va-t-elle qui nekkoon en état elle va bien mi ngi foofu. d'accord léegi ñu yóbbu jël ko yóbbu ko centre Guindé. Mm. en attendant ñuy trouver solution ci xale yi. inchallah sinon. su ko fi bànn yi fekkee ray ko bu leen ni ndooy baan waxul woon. Oh. ko fi fekkee violé ko bu leen ni waxul woon et wóor na ma ni suñu ko laajoon biir na ay traumatisme yoo xam ne ci mbedd mi bu ko mën a nettali laaj naa ko ko bi ma ko njëkkee gis ci biir oto bi ma sama gaare woon ma gis ko noonu ma dama defi noonu damaa jommi waaye mais lii di loxluxi ci biir oto bi lu mu doon ma dem ba ci bi gis ko ma wax ak moom faalewu ma toog naa ñetti fan may wax ak moom faalewu ma waaw gis nga faalewum nanguwul wax ak man après au fur et à mesure ma koy wax wax ba mu nangoo wax ak man. mi ngi nii papaam ak yaayam nañ xam ne xale baa ngi suñu ñëwee fii TFM. ñu dinañ wax fii xale bi nekk ñu bu yóbbu. Uh-huh. wala Euh, police ñëw jóg ci wala gendarmerie jóg ci wala waa centre Guinée ñoom waaw moom foofu la ñuy encouragé Anta Mbow empire des enfants ndax moom itam lu ni mel moo tax mu bàyyi tugal ñëw toog fii moom mhm. Anta Mbow mhm. ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax baax ci biir mhm. émission wareef sunu xarit la ku nu jege la waaye gis nañ ne li muy def dëgg la ci moom balaa ca kenn di ne moom ma nga ca woon ak yaayu daara yi nga xam ne itam ndoy baan ñun xamuñu leen ñu ngi ci daara yi ñu ngi jàngale alxuraan ñu ngi sang ak yére te amuñu sax les moyens di ngeen am les moyens parce que yàlla mooy fay te ku mu fay nga kontaan mhm. Mhm. doo ñàkk dara ñi am yenn tàggatoo ñi am yenn moyens dëggantaan sax du ñuy def genre yooyu ñi ngay gis ñu di ci sonn mooy ñi nga xam ne amuñu moyens yi mais dañ cay nekk ba yàlla fekk leen ah ah mais daal ñii daal ah. nañu ñëw jël si seen doom ji ndax doom du lu ñuy sànni sama xel bala may jooyee jàpp nag ma dégg enfant de la rue waaw rue la wax xel day dem ci tata Seynabou Diouf yaayu Talaata Diouf mhm. maa ngi koy nuyu a baax ba ma koy a nekkoon ci mbir yu ni mel yàlla na yàlla fay ko moom itam yaayu talaata Diouf mm. ay ca may may nuyu Youssouf euh, Saleh Ahmadi. Mm. al Ahmadi Youssouf Saleh al Ahmadi nekk fële ca Koweït. di ingénieur. sama benn xarit la boo xam ne day tabax ay ay ay jumaa fii ak ay jàkka ci dëkk bi. ñu koy félicité ci lool bu baax a baax sama benn waay bu tudd Malick jonn di mm. ancien ancien international. Mm. footballeur euh, en 2000. moo moo ko fi indi ñu koy nuyu baax a baax. ak ñëpp ñi nga xam ñi ngi seetaan tey jàppale nit ñi ci social beeg yooyu. ñi ngi leen di tàggu di leen ba suba ak jàmm incha allah. di naanal suba gaynde yàlla na yàlla may leen ndam. ñu gagné lu bare bare lu yaatu. su ko defee Sénégal jëm kanam. Mhm. Oh, Zimbabwe tëdd nelaw. man waa Dubaay laa jël sama xel dafay dem ci waa këri Serigne Abbas sàll ca ca Dubaay. Oh. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax soxna Aysatu Sall itam. Oh. suñu xel a ngi ci yow fàttewu nu la benn yoon waaye nag itam Sayid ak Halima maa ngi leen di nuyu namm naa leen lool lool lool waa Dubaay yi laa namm. du ñàkk ma seeti leen. incha allah euh, ajaratu ku la sañ xanaa Abim Ndiaye nekk fële ca mi ngi ci 77 151. 56 27. 77 151 56 27. woo leen Abim Ndiaye mu defaral leen ci yu baax yi moom tey xëtum dënn la ma xët. magum jëm mu soj mu mel ne man nga xët ma xëtum dënn waaye seex bi kenn du yow. seex bu mag bi maa ngi lay ziyaar. waa kër ga yëpp. la yàlla fayal naa fi nga. fan yii maa ngi leen di ah. ziyaaraat lu bare bare. Ah. waaye Nafi lay masawu ci suñu doom jooju dëdd muy Alimatu Sadiya. Eh yàlla na mottalee ndawam ci àjjana. képp gis ko photom bi ci bi jaaxle nga ndax macha allah sët la ci maam ci papa Basirou Diagne Marène Diop yàlla na moota leen ndawam ci àjjana ndeysaan kon bokk ñoo ngi leen di jaale bu baax a baax a baax njaañeen yooyu waa kër Diagne Basirou moom itam yàlla na xippee firdawsi mhm. ñuy nuyu nag ba tey rek Adja na bu kan bu London Adja na bu kan sa wax yu rafet fii la nu fekk macha allah Gambie ak Sénégal benn la ñu kenn mënu koo xar ñaar mhm. te incha allahu taala yàlla dana ci def jàmm dana ci wis ndox bu sedd guy ndax euh, àdduna nit dafa dafa war a taxaw rek seetlu ren da ngay ragal loo xam ne bu dëwënee saan fekk romb nga ko yaa ko uh-huh. yëgul uh-huh. ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax may remercier également Bamanan Style ci robb bu rafet bi nga xam ne solol nañ ma ko ñu am fa nag ay paañ paañ yu rafet yoo xam ne ñu ngi koy jaay mm. ku bëgg itam Mimi Traoré dana la ko ñawal on a sorti une belle création une une belle collection en en pagne kon book mën ngeen a ñëw démb maa ngi wax naan les femmes euh, dañuy bouger lu bare bare bare ñun dañ leen di habiller facilement maanaam ñu ngi ci voyage yi ñu ngi ci forum yi ba tey loolu laa bëgg a wax daal ak jeeg bi nga xam ne sax day yóbbu doomam yi école oh, ci la bokk kon bokk remercier également sama bijoutier moom ma nga tudd Mass <coughs> Mass Touré maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax pour bijou yi nga xëy rek may si ma ko di remercier sa jabar ba Manon Style mi ngi nekk ci trop